suñu ñaar waajur maa ngi sant samay yi ma ne fekk mais samay jarbaat n'est-ce pas du xam ngeen ma xam naa leen n'est-ce pas Big Pato mbër policier wala mbër askan wi ay xale ngeen may xale li may indi fii du xam ngeen ko mooy damaa gis ni yéen a ngi entraîné bay bëgg a dee surtout sama booy bële jël ma booy bële xeeru faas ba may ko préparé sama combat faas ba léegi booy bi day entraîné musul bëre xam nga du yoon 2017 ba léegi bëree goo arène Dakar du yoon n'est-ce pas tey sama objectif mooy fexe ba yéen yëpp ngeen bëre chaque dimanche ngeen di bëre parce que man mbër laa mais yàlla dimbale ma ma nekk sama métier déranger wu ma am ma mën a jàppale déranger wu ma nest la mais man sama du man du man mais man yéen la xam naa yéen ñëpp bëgg ngeen teral seen i waajur bëgg ngeen dimbale seen yaay ak seen i papa ak li topp seen ginnaaw n'est-ce pas te bëgg ngeen am ay bis yu mag fii koo fi gis yéen roi des arènes na bëgg nekk am na walaamul amul am na wala amul non bu dul dëgg wax leen ma yéen ñëpp Balla Gaye ngeen bëgg a doon wala Modou Lo wala Bombardier sama objectif mooy ñu def benn journée non violence day lamb joo xam ne dañuy civiliser parce que bu ñu duggee fii nii à part de suba yéen kenn ku ci nekk dina am parrain est-ce que mu ngeen gis premier combat nga sol blouson mos ngeen koo gis ci lamb yéen ñëpp incha allah rabi premier seen combat di ngeen sol blouson yàlla def na di ngeen sol blouson seen staff sol t-shirt loolu neex na wala ñu koy def ak suñuy partenaires yu ñuy jàppale dama bëgg nag ñu def conférence de presse def ay face à face day saf nag waxante lu leen mais pas de violence ku jekk sa ci suuf nag nga wax ci suuf man bañu ma mbër mi wax ci suuf mais bu mu jëm kaw bu <laughs> ce pas ngeen am combat clip mais li ci gën a bëgg nag mooy ñun arrêt lañ bokk ñëpp xam nañ bokk dañoo seetlu nga ne parfois combat du am équilibre ah da ngay gis benn mbër muy pesé 100 kilos ñu yokk mbër muy pesé 50 k wala 80 kilos équilibre ah, xam nga tey loolu baaxoo ci làmb dañoo bëgg violence xam nga fan ngay commencé mooy mbëri tolloo d'abord buñ tolloo doole ñu ma ko recommandé woon xool ñu xool a bëre ñu bëre su ma jëlee dix combats yi nag neuf combats yi parce que bi ngeen benn tubaab mooy ñëw est-ce xam ngeen a jógee Pays-Bas Hollande loolu kon kooku bu ñëwee dañ ko war wan suñu cosaan war ko yar ak teggi nest pas ba moom bu demee sawar a ak ñeneen bay muñ demee tamit ñaan nañ yàlla ëllëg ma ànd ak yéen dem feneen ñu dem Canada wala feneen Espagne fu ñu invité ñu dem bëre parce que mën na nekk Bombardier ñoom dañ ne ñoom Balla Gaye tey mbër chaque jour ñu dem États-Unis mais mën nekk gëm seen bopp yaru leen ah, gëm si kenn kii xam nga la ma tax commencé gu ma Sëru Faal sama kilifa la bu dee man maay tëgg làmb ji Sëru Faal mooy sama sama manager du ma def dara te ñëwul def xam nga ñu leen jiitu seen rak topp seen ginnaaw loolu dëgg loolu dëgg ay pour ça et eh, vive la non violence nee na non violence non violence day non violence wax ni sénégalais amateur dañoo sonn ci làmb ji yàqu imagine combat Papa Sow man dama jóge fële solo ba naas ñëw yaakaar damay seen làmb dem ba dene waa jili sama xarit yaag Siteu est-ce que ngeen ak Papa Sow dama leen def ci combat bi dañuy ñëw far force parce que yéen a yàqoon làmb yi ngeen ñëw defaraat ko nag loolu loolu bëggatuñ ko ci làmb ab tëggkat boo tëggee pare ajul ca kaw supporter tooxal del tàccut sa mbër rek yow te yow nekku si ne bul saagum saani ndox man mi di waxee damay bëree est-ce que bu ngeen gis benn police bu yàq làmb sama combat daanu ma daanuwaat ñam naa defet pourtant defet neexut de boo koy xalaat sax da ngay bëgg a jooy mais dama jàpp ni kaf ak réel la jongante la da ngay ñàkk mbaa nga gañe yéen ñi ñëpp ku ci gañe ku ci am combat na nga félicité ki amul combat ki amul combat félicité sa morom bu ngeen amee combat aussi bu jour combat wa ku ci daan encouragé sa morom sa morom félicité la vous avez compris ñu dem defi leneen ay pour ça waaw ngeen xës pour ay pour ça ay pour ça waaye ay ay pour ça dañoo bëgg yéen ñëpp rek ngeen am sportivité sportivité bi ñu bëgg ngeen am ko mooy journée bi non violence la journée bëgg ñu am benn entourement surtout yéen mbër yi seen accompagnateurs yi dee leen wax ak ñoom seen accompagnateurs yi am na accompagnateurs yoo xam ne ils sont très indisciplinés da ngeen koy wax te yéene leen di may fit boobu parce que da ngeen di fekk un gars ngeen jël ko teg ko seen wet pour mu ñëw ruubee làmb jaamur yàq làmb jaamur loolu lañ leen di ñaan ngeen moytu ko Big Pato bu demee ba taxawal journée boo xam ne non violence la dëgg-dëgg lu xeetoog violence waru fa am ñoo leen di sant di gërëm. li may fayee licence promoteur xam ngeen ne mën am ñaata xam ngeen licence promoteur du xam ngeen ñaar lay jar multiplié par ñaata vingt licence su mbëre dóor benn licence mbër promoteur kese vingt licence mbër wallaahi li asi moom lay jar du wax sombi parce que ay nit ñooñu sante ñaanuñu yàlla commencé kon su ma koy def pour yéen samay rakk la pour jàmm am la mais nag da ma si jàppale ngeen fekk ma si waa li neex na wala neexul waaye da ngeen fexe bu ñu si liggéey ngeen jàppale ma ma kii waa particulier non non salaamaaleykum ñu leen di nuyu yéen ñëpp di leen di leen di leen di nuyu big bu baax baax ci initiative bi nga xam ne am na ko ñu koy félicité bu baax a baax ndax initiative bu mu am ni bu ko ñeneen amoon kon tey heure bi waxatuñ ko particularité bi ci nekk mooy dañ ne ay mbër yu mësul bëre moom la ñu jël pour ñu bëre kon donc ñi fi nekk fi ñëpp kon doon na ñoo xam ne kon kenn waru cee am combat doon na ñoo xam ne kenn bëriwu ci beneen bi mooy lamb ji non violence la gis nañ lamb ji li ci xew chaque fois mbër da ngay ñëw sax yow nga daan ba pare say supporter jàpp stade bi daj daj siège di sànni wala di xuloo di xeex loolu dañ ko war a bàyyi lamb yi dañ ko bëgg ngeen bëri ko ci dal bëri ko ci jàmm bëri ko ci teey dañu xam ne li ci lamb bu njëkk amatul lamb di nekkul loo xam ne da ngay ñëw wane ne man mii nii laa mel wala affaire bandi la wala affaire waag loolu amatul ci lamb lamb dafam ay règlement yoo xam ne moom moo ko régir lamb lan la ay doomu ndey lañ ay doomu baay la mu ngeen dem ba tuddante ci ay doom dem ba di si demalante ku am naqar nga dem ku am bànneex nga ñëw affaire làmb loolu la ki ngay bëreel nekk nekkul sa noonu sa adversaire 10 jours la da ngeen di bëre yéen yéenay ment xaalis làmb ji làmb euh, làmb non violence la dañ ko war a bëre ci fair play ku daan nga xam ne daan nga ki daan nga xam ne daanu nga loolu la ñu leen ñaan nag ñu dugg si ak bismillahi rahmaani génn si ak alhamdulillahi rabbil alamin ngeen fexe ngeen jàpp loolu bu baax a baax ganaaw waaw waaw salaamaaleykum mbooloo mi nga xamante ni ñoo fi teew yëpp defe naa li njabootu làmb la te dañ naan genn golo gudd na waaye loo ca laal borom yëg ko Big Pato mbër la comme yéen am benn initiative boo xamante ni da ko bëgg a def comme niñ koy waxee toujours rek et slogan groupe baax mooy lu dul baax baax ku gën te lu dul yar tamit lu la yar mayul reewande mënu koo may te yaakaar naa yéen ñi nga xamante ne ay mbër ngeen ngeen bëgg doon ay champion am na si ñoo xam ne ñëpp nag mënu ñoo doon roi des arènes mais am na fi si yéen ñoo xamante ni yàlla xam na ne dinañ mos a nekk roi des arènes kon donc loolu gëm-gëm la ak bëgg-bëgg ak xam li ngay def ak am kilifa parce que munoo nekk ndaw ba pare te amuloo kilifa kooku mënta nekk ndaw lu nekk ci écurie da ngay nangoo bootu si sa kilifa bu la teree nga bàyyi bu la digalee nga def kon yaakaar naa ne euh, kii bu ñëwee di def làmb joo xamante ni non violence la ñun ñi nga xam ne ay responsable écurie lañ kon tey dañuy ñëw gunge ko ci accompagner ko si ndax ndaw la bu nekk si làmb ñun ñu nekk kilifaam ci làmb mu nangul ñu ko kon defe naa ni mu ñu nangulee ba buñ ko teree mu def buñ ko defloo mu def yéen ñii war ngeen cee mën a topp loolu royukaay la si moom yéen ñëpp war ngeen di roy lu baax loolu parce que fi mu taxaw nii ëllëg jombul kenn si yéen parce que mbir mi euh, du lu luy di defal boppam yàlla jàppale rek moo fi nekk te yaakaar naa yéen ñii ñëpp yenee mayante xaalis ñi ci bokkul écrit ku ci nekk mën nga laaleeg sa morom mais làmb nag bu jeexee jeex na violence bi ci làmb da ngeen di xam ne làmb amul ndey amul baay lu jóg rek salte bu jóg ñu ne làmb la salte bu jóg ñu ne làmb la est-ce que déggagum ngeen kenn ku dee esat ci làmb amagul xëy na violence bi mu ngi am mais ay non comprendre lañu am ñun ci làmb mais amuñ ay noonu làmb kon donc nag li koy firndeel yéenay joxewaat exemple bi yéen ñi nga xam ne yéenay ndaw ñi yéenay mujjee réew mi yéenay mujjee làmb ji kon ngeen gën a góor góorgóorlu làmb ji nga xam ne moom la Big Pato di def képp ku ci sa wër wërsëg nekk di nga ci bëre yàlla may la jàmm ba bës ba la meilleur gaña kon yàlla yàlla defal ñëpp jàmm. alhamdulilah fils ñoo ngi leen nuyu leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ak tawféex ak taysir di nuyu ñii ñëpp euh, dañ ci wax ne njàmbaas yàqul sër garab ku ne xam na ne reen moo ko yor te reenu làmb yéen la mbër yu ndaw yi mbër yu mag yi ñooy xob yi ñu ngi commencé dee xob bu dee day ruus ku ne xam na loolu ci garab wala xamoo leen loolu kon yéen bu leen nangu ko yàq làmb yéen même bu dul ay néo violence ngeen bëri ci làmb yooyu bu leen nangu lu leen yàqal làmb parce que yéen yéen làmb ëllëg kon ni ñu waxee ndaw mooy yor réew ëllëg làmb yéen la yen ñi nekk reen bi parce que garab heure buy dee xob yi ci kaw ñooy njëkk a dee bu leen nangu nag ku leen dagg yéenay reen bi bu leen daggee garab gi dee mooy làmb foofu la nekk ma loolu laa ciy wax du ma sori mooy gëm leen seen bopp xam ni ñi fi nekk kon yéen lañ tolloon bëgg li ngeen bëgg nii am ci pas-pas ak fulla ak fayda moo tax ñoom ñu egg fi ñu egg du dara du affaire papa du affaire yaay diw mooy doom diw amul sans da fexe nekk diw est-ce que dégg ngeen li ma leen wax bu baax diw moo ma jur moo ma jur doon sa baay doon sa baay ko gën da ngeen fexe ngeen doon dara ci làmb lam ji ëllëg mi ngi si yéen ñii mooy lan entraîner respecter sa bopp bañ a dugg si luñ lay xeebee mbër du def luñ koy xeebee. muy nga nekk si muy nga nekk sa kër muy nga ñëw ci làmb ji yar yar rek la yar yar kase la yéen nag bu leen nangu violence am ci làmb ji muy supporters yi muy ku mënti doon supporters yéen la ñuy déglu parce que yen yéen leen di bégal ku si ne na nga wax say supporters boo demee làmb ja làmb ñett la am da ngay fii bëri niil mbaa nga daan baa ñu daan la kon yooyu mënul ñàkk si làmb da ngeen xamal seeni i tamit ñu koy def seeni i bopp ngeen baal ma wasalaam loolu rek laa ciy wax. la moo moom talul violence parce que sama objectif mooy day xeex violence tey ñu fexe ba yéen dootoo leen tal violence est ce que kuy liggéey dina tal violence maa ngi monté combat yéen ba combat ba def est ce que dinañ xuloo maa ñu xeex loolu mooy mission bi mooy Sénégal xuloo ba xeex bi lan nañ def pour di xëy dindi ko fi xiiroo ba ngaayo ba muy ñu timbari muy policier bàyyiwuñ kenn ah maa ngi lancé message président Macky Sall ak Ousmane Sonko nañ ba nañ nañ ci sotti ndox mu sedd élection yi nag gars yi def ci non violence Sénégal lépp même étudiants yi ak policiers sama doomu ndey dañoo bëgg non violence bi muy dakk muy law bu avez compris li ma bëgg mooy mbër bu ci nekk bu seen combat yi ngeen taxaw fii ma foto leen ma ne ñaar ñii la ba combat yëpp mat bu ñu paree nag ñaar ñu ne utal ma foto mbër yi rafet naag ñu defar leen ay blouson yi rafet defar leen ay t-shirt rafet seen face à maa leen woo ak seen manager ngeen fekk ma fi ñu defee seen face à face par ñaari mbër yu ne noonu lañ koy defee nag ba 10 combat yi di mat léegi nag. mbëri woo nañ ku nekk ñaari mbër mais da ngeen may ñaanal bu ma lijjantee équipe bu nekk au moins benn ñu mas parce que sama objectif mooy bëri musul bëre bi un deuxièmement équipe ne ma laal fa parce que tournoi la préparé woon na depuis daaw 2019 maa ngi koy xalaat léegi nag bu ñu jëlee équipe benn ba mu des ñu xool lu ñuy n'est-ce pas vous avez compris bëgguma kenn mer mais bëgguma aussi ñu def déséquilibre mooy équipe bi am ñaari combat kii am benn combat bu ñu jëlee équipe ba yëpp ku nekk man nag ñu xool benn benn yi du noonu d'accord ngeen si non dañuy waxtaan booy man ñun ñëpp ñoo bokk décision bi d'accord ngeen si mag yéen a faran ah. fii du dara dugg xoolal yéen yéenee man maay seen taalibe fi mu toll nii seen surga dégg nga yéen yéenee oh, ok. Eh, déglu déglu. yaa eh, may dégg. may ma ñu def face à face ñu dem déglu mais sama secrétaire bi moom du ma jël ci face à face eh yow secrétaire jël ci face à kay jëlal ma face à face mbokki amateurs yi suñu Boy Ndoye ak Bass 2 yéen ñaar yéen a war bëre ci journée de non ab tubaab a ñëw lu ngeen waxante yéen lu ngeen di waxante yéen auzu billahi mina seytaan rajim gannaaw ban sant yàlla julli si yonente bi di ñaanal sama waajuru jigéen fa mu nekk yàlla gën a fi mu jugee di nuyu sama adversaire bu baax di koy ñaanal jàmm ba le jour ji incha allah. waaw hmm. loolu koy wax yow booy doon def kii noo nuyu gars yi fi tey kii daal li ma a def daal jour làmb ja def. Hmm. naa ko duma naa ko daan. koy ngeen boo ak ñen ngay àndal. indi soobee di ànd rek di dox waa Thiès ne leen am naa combat maag bu baax. parce problème adversaire laa amoon te moom nangu naa bëre man. Hmm. di ko sant yàlla wax ñaanal nag moom di ko di gërëm ci combat bi mu jël dem. suukar. wuyu ma. yaay suukar. yaay suukar. yaay dafaa ñaar. kii moom mooy. oh. yow ku la du ndekki du naan fonde te mbër dañoo bëgg fonde booy kii nee na moom du la may nga ndekki parce que du nangu nga koy jëfandikoo. man damay ndekki force incha allah. ah damay ndekki force force. booy kii nee na suñu non violence mais du la may dara de ak amaa saytaan. non na dëgg. Ah. daa foog rek. doo ko may dara du ma ko may dara doomu Saalum yow. man doomu Saalum la pire damay gën mu jëbe laa dëkk. man dama doon woote Ndeo village mais comme Mbaye laa jógee Saalum. yow kañ nga fa jógee. man barke démb man maa tëgg Mbapare village fa barke démb. lu ngeen ah, kontaan rek. waaw ah, moom bëggoon nañ ko trop. di bëggee suñu grand Aliou Ba trop si sugar moom moom chaque jour mu ngi fi. ma ne jour boobu café ga amul lay naan. non force dana am sugar. doomi Saalum mooy ñëw. Ah. doo mer. booy loo loo xalaat ci lool su ne doomu Saloum moom ñun ñëpp a dëgg Saloum. Ah. man Kaolack laa dëkk Kër Sox laa dëkk Kër Madiabel laa dëkk. booy sama journée non violence bi damay damay ragal mu nekk électrique de. ayca yoo joxante leen loxo gaaw. Badou Boye. yaa ngi booy Réfane. booy Réfane nee li tafaatin def booy ñaa lu ko raw lay def. ah moom loolu waxam la rek. Ah. xam. non daf maa dee sànq mu ne big kii li tafaatin def booy ñaa lu ko raw laa lay def. man leer na ma ne dama koy simbax moom mi. dama koy booy kii nee na da lay simbax kii daa baax di wax rek ginnaaw bu ñu sant yàlla jur si yoneen bi di sant suñu ñaar waajur di sant caa waa Caare Gueye ñu jógee kii boo waxee loolu day wax lu ko rek. waaye dama naan xoolal damay woote non violence mais bëgg ma ay combat damaa bëgg lu saf sàpp de dégg ngeen. combat bi day yow day saf maa kii maa kii dañuy xeex. door mu daanu la wala. lépp ci maanaam lépp du yomb moom combat mu mënul yomb. ah man de kopp mbooloo moo ma arrangé. joxe na ndel loxo ma ko. kii maa ko mbooloo fuuf. barki Seydina Mohamed maa ko. billaahi boo ngeen barki alxuraan waaye yow da nga baax rek. Ama kii nee da ngay sóob nee na li nga wax da ngay Ama Baldé ngeen gëmboo doo ci dara. waaw bisimilah rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sante yàlla sant yàlla di nuyu suñu ñaari ñaari waajur bu baax a baax a baax waaw gis nga moom Seck xalaatam la wax rek kii bi bis baa ko jàppee barki maam Seyra Fall du mu gis kii jour sax du ñëw làmb booy dégg nga li mu la wax. <laughs> est-ce que xam nga ki ngay waxal. Ardo 55 borom doole kaa ñaama. Ah? barki sëñ waxaat ko waxaat ko. borom doole Bamba kam eh. ira yera. Eh. booy man nga dafa séeréer fuuf. bëgg ngaa naan man doomu séeréer doomu pël Fuuta laa. man booy damaa seetaan man bala maa kontaan nii ngeen dem Ardo yéen. man doomu séeréer doomu pël Fuuta laa nga lu ma la wax. dam ardo non mais man du doon mais na yem ci wax ji nii rek mais damaa bëgg ngeen dama koy dóor day toog kii dama koy dóor day wàcc. da nga koy dóor wàcc loolu laa ci bëgg man daal bëgg bëgg na yem ci message bi xam na li ma ko wax. nee naa ko doole kaa ñaama to kaam ira yera. Eh, doole kaa ñaama mooy damay lekk doole. da ngay lekk doole. doole dañ koy lekk te man damay ratu di naan man maay borom. mais lii fu mu nar a ah man de damaa tiit. non man samay supporter samay supporter ñoo gën a fair play ci àdduna bi barki sëñ Bamba dañuy sangu ba set sañse lu neex tuuro parfum yu neex yéeg ci kaw lu gis xam ne loolu la yàlla. waaye nee ñun déggoo lu ma la wax de ñun Ama Siteu borom 37 mbaari gi ñun lu ñuy ragal fair play la ñuy dundee ñun. ah loolu daw na yaram kon gars yi non violence. samay supporter dañoo wóolu seen mbër. xeexuñu xuloowuñ man mii maa war a neex la nañu ñëw. xaarim xeeru Fass kii na ko amateur ñaanal kii ba may préparé face ba léegi booy musu am combat bokk na si booy yoo xam ne yàgg nañu mu ci combat may gërëm euh, père Kati ak ñoom Socé biñ ko dugalee ci journée bi xeeru face ay at a ngi nii yaa ngi xaar combat tay am nga combat looy wax sa adversaire ak looy wax sa amateur. ange billah inna wala yàlla jërëjëf Serigne Touba. ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Seydina Mohamed di sant suñuy ñaari waajur. le le douze le a waaye moom nañ dama koy ñaan ngir yàlla mu bañ a delloo sama avance ndax xam naa ne ma moo doon mu jël ma mais su ma xamee du ma jël. booy man maay tëgg la maay doon micro centre ak bu avance moom na fexe bu bu mu delloo sama avance loolu rek laa koy ñaan. booy kii nee na tàppen nga mais bul delloo avance bi. ginnaaw man sant yàlla julli jiyante di sant suñu ñaari waajur di sant ñu fi teew ñëpp. waaw sant ak lu lamb sant waa Tivaouane nga ma jógee. kii maanaam da nga may. non bi nee naa bi la rek mais li wax li ñu koy wax. kii mi daa baax di wax rek. barki Serigne Bassirou Bara war bi soufflé du gis dara. déggoo li ma la wax. barki Serigne Bassirou Bara war bi soufflé du gis dara. da koy caw lépp maa koy def. la fay am ci biir. incha allah saaga yàkkamtee xeex la. fii ngay waxee mais buñ tëjee barrière yi mën a bu arbitre soufflé barke borom daaru fu ma ne la aw fa foofu ngay aw maa la pour doole hmm. maa la dàq bëre hmm. maa la mën yàq mbooloo barke alxuraan ñun ñun dañuy togg bañ ñor ñu door ñoo yàq ñun faas lañ nekk te duñ ay ragal maa ngi sant waa Jurbel bu baax nag hmm. di sant dëkku làmb yëpp waa Marlooj waa Fimla waa Simal waa Jofior waa Ñoojoor waa Baasul waa Baasaar waa ah, Jurbel ga ma dëkk maa leen di sant bu baax di leen gërëm non violence bi ñun moom duñ def violence ah. suñu supporter dañuy raam ndànk dugg stade ñu jàpp ko daan ko dem ñibbi c'est simple. aja soxor kele booy fay nañ ñëw. soxor kele rek booy. soxor kele nga ma wax de. soxor kele man moom boo fi ñëwee dafa yëfi soxor kele. dama dama toog ba gaay tuddee ma soxor kele. dama bëree di bëree ba fàttali te foowantu ba gaay tuddee ma soxor kele. yow ngay utiliser kele 13 wala kele 14 wala kele moo bu mu si bëgg rek. nee na yow bu nga da lay visa rek yow. auzu billaahi mina seytaani rajiim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi ngi sant suñu ñaari waay di sant suñu sëriñ sëriñ Mourou Diam Meewaan di ko ñaanal mu yàgg fi lool kii nag ñun ta di élève te buñ jugee suñu mbokki élèves yëpp jug barki Seydina Muhammad bu dee mbooloo si kàttan yàlla ak mbaax dinañ la ko mobiliser ba mu mat sëkk ñun ay élèves lan xam nga ay ay lan seen i dërëm dërëm lañuy di ma ko jox eh. tey bi ma ñëw fii maa leen bàyyi ñu may xaar per waaw ay élève lan seen juróom ak seen ñett dërëm loolu la ni boole di ma ko jox pour ma am combat kii nag dama koy sant di ko gërëm ginnaaw bi ma jëlee ginnaaw bu maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal jàmm ba bu mu delloo avance bi nag di ko def nekk xale ko dàq bëre barke maam Cheikh Fall boy boy ñeme nga xool kii ji bët kii du ma ko ragal ñun du ragal de ngi xool ba le douze barke Cheikhul Khadim laa la koy ma delloo avance boy man ah kii ñoo a waaw waaw waaw waaw bañ sant yàlla jul si yonent bi sant suñu ñeere waar jur di gërëm ñëpp di sant sama grand yi. ñëpp ñi may jàppale si entraînement yi. ku mel ni ñoom Doudou Thiaw ñoom Abdou ñoom Abdou te ñëpp maa leen di béggee. waaw kii nag wax ji moo bëri. ay élèves laak ay lii yëpp yooyu jaru ko fi. Uh-huh. du le douze. ma indi samay kelee teg. Ah. ma ñëw ne ko. boo soxla boo boo soxla man démonté la ko. man soxor Kelle la. ah yaa ngi jóge ba Jandeer lu ne wax nga ko bul guy gee ngi nii Borka Sow la nekk moom it daa yenu ay xeer yow looy ndekkee xeer. xeer waaw. dégg mu wax nee na ay xeer lay ndekkee de. waaw xeer moo baax boobu moo may arrangé ndax bëgguma mu nooy quoi. donc booy damaa saytaan li may li may noo laa saytaanee ci lamb. dama bëgg mu ndekkee xeer ak leneen lu gën a wow xeer ndax combat bi mën a wow bu baax. noo koy def. waaw ah, nu ma koy def lu laaj rek ñu def ko loolu incha allah. booy xoolal man ñëw fi ay eh, nu eh, eh, ah. la. moom moom xam na ni day bëree moom. kii ñeewu la daa complexe. auzu billah bismillah inna wala yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. kii moom amul leen loo xamante bi ne moom la ñuy wax si moom. di la sant nag di la gërëm. ndaxte tey jii lii bu la neexoon nga bañ ko def. tey jii euh, ferpele nga woote. di woo gaay yëpp nag ci dal. ñuy bañ di yàq. siège yi ñuy damm. dëgg dëgg yàq affaire yooyu. dëgg lépp ci fair play daal. yaa mu gën a xam biir géew moom bëgguma ci fair play moom. non biir bi njarndeem la saytaane la te koy duba ba mu bëgg a dee daan ka kii nee na la doomu njaabi laa njaabi yi dañ maa sas. booy kii kii nee la. waaw ginnaaw dañuy jégalu rek avant dañuy nuyu waa Kër Matar bu baax waa Yadda waa Mbisaaw sama turandoo Bac Seras waaw dama koy woo si combat bi dinaa ñëw ba këram incha allah. d'accord bi ma àndal waaw di sant waa Kër Matar yëpp xam leen am neen combat. joxante leen loxo gaaw. Eh, trois ans ngi nii muy wër combat amu ko ñetti at am na combat tey loo koy wax. am na combat ah bisimilah rahmaani am na combat moom bu ñu bëree moom is kattan borom daan. waaw moom bëggoo gàcce. naa est waajur waaw moom li li wax bëriwul ba suur laam rek. waaw ndax dafa naan xoolal man booy tëggu ma ay ko ba ah, ay xoolal loolu ñu wuñu fi de damaa bëgg mu xumb mu tàng. Eh, la de tapet la. bañ gàcce mais dina am gàcce su su bis ba billaay walaay. ñëw ñëw na mais du moom de. Ah? du de mën na ko mën na ko. booy nee na xalaat man yéen xalaat xalaat doo fi jaar. déggoo ma bu xeexee ma duma bu bëree ma ba koo dóor si suuf. lu ngeen wax ci non violence bi. xel maa ko dool ma maa maa ko daa ko bëri. waaw sëñ rek. kon daal yéen a ngi pare boo war seen supporter ñu ñëw bëre ci kafre fair play joxe leen seen numéro après dégg ngeen ah, kon euh, Khadim yéen a ko gis face à yaa ngi noonu def nañ ko jeex na. ci amateurs yi mu ñuy si à travers quatre appuis yéen a ko gisandoon non violence la ñu woote mais booy li ñu waxante fii nii non violence du ci am xam naa ne moom bu ñu tëjee barrières yi leneen la ñuy gis kon li ñuy woo mooy woo amateurs yi woo waa bi ku mel ni ñoom moo Ndiaye Iko. Aïssa Diallo Khady Lana Saya Touré Séral di woo ñëpp di woo ñoom Arona Samb di woo sama xarit waa États-Unis ñoom xarit ah Kanté ak waa Sador di woo Aziz Ndiaye di woo Balla Gaye Modou Lo Papa Sow Siteu ñooy doon parrain yi Papa Sow Siteu dama leen invité invité doon lañu doon kon gars yi combat liggéey bi commencé na chaque jour di ngeen gis vidéo bu bees di ngeen gis ay affaires yu bees ay yu bees kan Big Pato Events ñëw na mbër la woon tey mu ñëw bëgg a nekk profiteur bu jàppal xale ñu xool lan ma xew suba jaajëf